te koo fi bàyyeel boppam mu defee nu ko neexee te réew mi waratuñu accepter benn yoon nit mën a taxaw fenn di def lu ko neex ba pare bëgg a nit ñi ci ni dañoo mer déedéet dañu leen joxul déedéet dañoo gisul seen bopp demewul noonu ndax ñi fi nekk ñëpp ñoo mag poste ñi fi nekk ñëpp ñoo mag ay cër. du ma nekk ci parti wala nekk ci coalition ñuy jalgati di opprimer di brimer. di jalgati charte bi accord yi ma taxaw damay féetale côté peuple bi am nak un devoir de rendre compte surtout que ci bir coalition bi may ñu ma au président de la conférence des leaders benn bi moy mandat biñ ko jox mu def ko lu ci neex bu ñu dañ kay porter plainte pour usurpation et trahison parce que dañ ko wolu mu jël suñu qualité def ko num ko nekkoon ci Macky Sall la gënoon a yomb fuuf foofu la gënoon a nooy fuuf waaye ba fa gisee la nga xamee ne teguwul ci yoon du démocratie du dëgg dañ leen fa teg na yekk bu naqari dem taxaw fa ñu war a taxawee. mënuñoo mer administrer lu mel noonu Macky Sall ñëw dugg ci biir opposition bi bëgg a soppeeku. ci biir coalition bi ça fait cinq jours une semaine ñoo ngi laajte ay liste c'est un minimum c'est gênant pour ces militants gênant pour les Sénégalais ñu ne la ci département bi lan ngeen def munoo c'est un manque de respect liste nationale xamoo négociation yi xamoo. pratique yi Macky Sall di def Manam Ben genre copinage dégg di décider entre copains di séddoo entre copains C'est ce qu'on la ci Macky Sall manque de démocratie c'est ce qu'on contre Macky Sall kon bu germe yooyu commencé di poser ci yewi, dañuy alerter